war nañoo jógee gën kaa néew ci juróom-ñaari région maanaam région bu ne war nañ faa am 2000 parrain gën kaa néew la des ci limu parrain boobu candidat bi mën na koo jotee ci bépp circonscription administrative waaye tamit ci juridiction diplomatique yi wala consulaire yi li jëm ci wàllum parrainage parlementaire yi candidat bi 8 pour cent wu député yu nekk ci péncum ndaw réew mi la soxla méngoo ak fukk ak ñett député ci wàllum parrainage yu chef exécutif territoriaux yi ab liste bu pour cent yu président de conseil départemental ak maire yu toll 20 pour cent maanaam 120 élus le candidat gu ne soxla ngir réussir parenage boobu candidat gu ne mën naa jot ci maquettu version papier ak électronique bu fiche de collecte ci wetu direction générale des élections campagne de collecte parrainage bi door na ci àllarba gee ñu weesu ñu war koo amal ci diiru ñaari weer waaye électeur bu ne benn candidat rek la mën a parrainer bépp candidat bu ëppal ay limu parrain mën na neenal réussitam ci biir étape ci bu ñu commencé contrôle